nga xam ne moom moo di alalu Cheikh Ibrahima wane wanewaat nañ seen jëf ci kër xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall ci wàccaayu koor gi ak ndog yi nga xam ne moom la ñuy yóbbul ki fi nekkal Serigne Touba ñoom kuréel gi leen ñu ñëwoon doon indi seen addiya kumte gi jébbal ko Serigne Cheikh Jëmb Fall mu toll ci 1 million de francs CFA ab nag camion matt ak yeneen i ndugg ak jumtukaay yoo xamante ni dañ koy jëfandoo ci yóbbum ndog yi bi ñu agsee nag ki nga xam ne moom moo di jëwrinu kuréel gi di Seydina Omar Seck ginnaaw bu mu ko jébbalee sëriñ bi leeral na ko liggéey bi fal yaram ñu ngi koy sant ñaam yàgg fi lu ak yéen murid sëñ bi yëpp di sant di bu wér ci tawfiix gi ñu siyaar Fall defal muy moom mii toog bañ ñëwaat fi teewaat ci kanamam di cant rek di indi hadiya kumte gi toll ci million loolu lañ jaayante woon kodo bañ fi mujjee ne ko Fall ñaan ñu kumte guñ fi ñëw indi million loolu àll si Fall woon bañ fi jógee ñetti fan lañ am million bi mat lii nag ñoo ko cante ci tawfeex gi muy defal ci million boobu muy ko yow mat bi wàcc ngàcc dañ fàcce woon ak ñaari keesi jën yi ak ñaar napp yi téeméeri napp ak fukk ak benn ak juróom-benn fukki defukaayu ak juróom-benn muy muy Fall Fall yàlla ak mbuus yi def mburu mi ak ñeenti kees yi madaar ak ñeenti kees yi eau de Javel ak keesu tàndarma yi ak mbomb yi ak tàngal yi ak fukki butéelu ndox yee loolu nag ak cant la ci cant gi ñu dimbalee bi jaay biñ ñëwee wax mu defal ñu ak ñaar fukki bale ak ñaar fukki tame nga jërëjëf suñu euh, koy ak nagu nagu nag woowu nag wi dem Touba Fall léegi euh, dañoo na ci xare nag ku ne ci xare wax ji mën naa bari bañ bari ndax daanagul xare bi ñu nekk mooy koor gi ñu ne liñ bëgg mooy jëf ji mu saxal ko rek ñun xam nañ ne dugg ci noppam dana faju eh, li ma fi ñaawoon bi jàll la ñaar rek muritam yii di ko liggéeyal di Aly Cheikh Fall ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp faal na dimbali boppam eh, ñun xam nañu si dimbalee mu dimbaliwu te xam nañ ñun moo ñu moom adduna gi ñu ne ak àllaaxira gi ñu jëm te loolu moom xam na ko bu baax te li may wax nii xam na ko eh, murit muritam yi nekk réew ma ñañ fa nekkal di nasaraan yeeg naar yi xéewal yi ñu yor doyuñ ko dara nañ ko jox murid yooyu ñu jox ko ñëw jox ko fii ci réew mi xéewal li fi nekk te ñi ko yor doyuñ ko dara na ko jox murid tamit ñëw jox ko jërëjëfati kuréel gi nga xam ne moo di alalu Cheikh Ibrahima Fall mbégteem xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall jëmee ci ñoom kawe na lool ndax saa su ne ñu ngi wane seen jëf ci kër gi. muy jëf ju sell te ànd ak Pastef. jaa ngeen jëfate Seydina Omar jaa ngeen jëf góor yàlla yi ñoo ngi leen di siyaar baax soxna yi ñoo ngi leen di siyaar baax jaa ngeen jëfati yéen la ngeen jaayante woon ak sëriñ bi jamono ju ci ne ngeen gën koo feddali ngeen gën koo yeesal jamono ju ci nekk ngeen gën a xëccu jëm ci sëriñ bi waaye na ngeen xam ne mboolem loo leen waxante woon ak sëriñ bi bi ngeen dooree ba tey mboolem loo leen fi ñëw sàkk ci ndigal yi defal ngeen ko sëriñ bi donte kat sëriñ bee leen yolomal jox leen yëfi boppam waaye ba mu leen ko joxee jëmewu leen ko fenn da ngeen koo dellusiwaat ci sëriñ bi loolu moo di as ngeen ay gor ngeen waaye ngeen ndax xam ngeen fi ngeen tolloon bi ngeen di ñëw tey jii xam ngeen fi ngeen ne waaye lépp nag jëmm ji toog dong la du ci kenn waaye gannaaw bi ngeen ñëwee ànd ak Pastef ak dëggal ak ngëm ak wóolu sëriñ bi ñëw ci waxtu wi leen sëñ bi soxlaa nag ndax sëriñ bi li mu li mu yor ci loxoom jëmewu ko fenn dongo yi rek ko tax a jóg waaye dongo yi dëggal dongo yi dëggal yéen na ngeen ñëw ci waxtu woo xam ne waxtu bu baax fekk sëñ bi moom si yegg sës rëkk ci boromam. gaa yi baax yëpp gërëm nañ ko mu yor yëfi boppam téye bëgg a dimbali rijaal yi nga xamee ne danoo dëggal te tumuraañ woon lool ngir jonjog waaju baax sëñ bi am fenn ku ci nekk mu am fu leen jëlee boole leen ba ngeen doon ni ñëw teew ci kanamu sëñ bi sëñ bi sant na leen ci liggéey yi jàll lépp gërëm na leen ci liggéey yi jàll lépp ñu sore ak ñu jege jaa ngeen jëf donga yi ne ci wetu sëñ bi sant nañ leen barki dem boo njaay bi ngeen fi ñëwee di sàkku ci ndigal ci liggéey bi nga xamee ne mooy liggéey gii nga xam ne wax nañ ne doonul ci liggéey yi nga xam ne dañ ko sos ginnaaw sëñ Bamba ak Cheikh Ibra déedéet sëñ Touba ak ci boppam ñoo sos liggéey bi dem bàyyi ko gaa yi baax yi sëñ Modou Moustapha Fall ba ci sëñ Abdou Sakkour ba ci sëñ bi toog ndog yii la wax ne ku ma jox lu tolloog tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tàbbal àjjana daana def it bu ñu dee toggum ndog mu xool fu saxaar si ëppee dem taxaw fa mu ne héhé ah doom ndog yi may toggal sëñ Bamba ku umu woon ba mënatoo am dara bu saxaar si ci yow bu la duggee képp umute gi dana doon bu dee wéri dit sama borom dana ko saafara kon su leen yàlla defalee tawféex ngeen jaayanteek jëmm jii di mooy maam sunu Ibrahima xalilullaahi ngeen waxanteeg moom xam ni kat sëriñ bi am na ci loo leen nekkoon ci liggéeyu tar diiru ñetti weer jàpp ñeenti weer lépp nag def ngeen ko ngeen dëgmalaat koor gi xam ngeen ni yàlla du jaawale jëf yi benn yoon lu mu gën a mitti rek gën a baax lu mu gën a tar gën a baax lu waaye di barkeelu bokkuloo ca ndax bu ëllëgee pay ki jaayante ab payam du bokk kii barkeelu waaye yéen ñëw leen di barkeelu ci sëñ bi da ngeen di ñëw di liggéey si muy góor yàlla yi muy soxna yi muy ñu jege muy ñu sore yéen de bu ëllëgee seenub seede wallaahi asim ñun ñooy doon seen seede yéen ndax wamaa sayib naa illaa bi ma alim naa ni ngeen dikk see ci liggéey bii nag sëriñ bi dafa sëñ bi nee na ñii ñooy ñoñam yéen ñi ngeen dikk see ci liggéey bi yéenay ñooñu sëriñ bi nee na rafet leen jort dalal leen seen xel bu baax xam ne li ngeen bëgg moo ko yor téye ko ci loxoom loo leen gën a dox rek loo leen a xëccu mu gën a dajak yéen muy gën a baax di gën a saawaan di gën a baawaan wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf sëñ bi nee na nangul ne leen ko dana ko teg ci loxoy Cheikh Ibra Fall mu teg ko ci loxoy sëñ Touba nee na ngeen dem waajuwaat ci ñaareelu kumte gi dana dajawaat ak yéen defaat leen lu kawe seenum njort jaa jëf yoon nag suñ ko dee wax ku dox tax ku doxul bokkuti liggéey bi li muy yéeme yéeme yëpp ku ci deful dara bokkuloo ci ku jëf dong la sëñ bi waxal jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ci sama baay la ma sama baay bokk ndey ak baay xam nga sëñ ñëwoon na fi ak ay doomam ñoo ñëwoon ci siyaar bi waaw waaw kesa ak sëñ Massaer Sylla mi ak sëñ Mouhamed Thiam si gën sax moom laa nu wax waa nu yónnee addiye ji rek ndeysaan waaw waaw kesa ak ak sëñ Saliou Sa murid yi nekk réew ma ñëpp